suba la màggal yàlla naa ko Ngañ suba la màggal suba la màggal Ngañ baax na loolu baax na. waaw waaw. loolu la ma wax démb. waaw. loo bëgg nga waxal ñu. mais sëñ Ngagne sëñ taxaw wax ak sénégalais kan mooy soxna Fatou. soxna waaw nga wax sénégalais kii soxna Fatou. soxna Fatou. waaw. mooy ki nga xamante ni. day jéem ci sëñ Abdou Karim. moom. waaw. dafa doyloo rek sëñ Abdou Karim. Mhm. moom dafa tànn rek sëñ Abdou Karim. dëgg la sëñ Abdou Karim nag xam ne kenn la ci moom jeex ci fu mu tegul kenn. Mhm. xam nga lu la koy wax dafa am firnde li may wax. muy mhm. wax bu ñuy làmbatu. soo génnee kër sëñ Abdou Karim këram nga ciy teg. te kër yi bari nag. dëgg la liy firnde la loolu. bëgg bi ko sëriñ bi bëgg ak fi mu ko teg ah! bi lépp lu mu fonk mhm. képp ku mu bëgg kii la ci wóolu moom la ko jël te du yónni kenn nag mhm. téléphone am lay jëlal boppam composé ko teeg teeg mu ne allo mu wax ko lim ko lu leer laa xam ci li may lu leer ndax nag yaa ngi bëgg a yàgg fii ma ne la sëñ Abdou Karim doomu sëñ la. su eh. borom Touba la. waaw sëñ Karim li mu am waaye fàttine. Eh. benn rek la ci am. wallaay dëgg la. lekk eh. ba naa ko dimbali waaw dañuy lekk ba am du des. waaw yow laa bëgg yow laa bëgg ay la ay la kon tey kon faa kon faa waaw fii laa xoolee tey tey lan ban bu gëlëm wala ban xamu ban la ci waaye en tout cas dama lekk ba naa waaw waaw kon faa fa nga doon déggee ñëw ndindi fekk ko lépp ci yow fekk kenn du soxna Fatou Kiné ndeysaan. waaye suñu kër la koy àngalee. dëgg la ndax lu mu ne boo ko tëjee commencé na. wallaahi waaw jaay fii lay fanaan tey. fii lay fanaan yaay Fatou Kiné. waaw fii lay fanaan suñu lekk. wallaahi dëgg la dañuy màggal une semaine après ñun ñuy màggal. dëgg la ndax lu nekk dañu ko yóbbu macha allah. ndeysaan. daaw fi la dal. waaw. ndax ñaari at ñu ngi fi dal. dëgg la ñaar daaw fi la dal may kaf ak ñoom dama leen di tooñ. ñoo bëgg oyof rek dañoo oyof. waaw. béré am junni kon ni hein waaw kon ah kon ran ran maa jiite béré hein Tandiagne Tandiagne lu xaw ñu ngi bëgg yéen sax daaw leen fi daal yéen daaw leen fi daal yéen bëgg mu tëj eh, eh, waaw mais mais nga màggalu ren gi noo ko dundeegul màggalu ren gi nga nekk soxna Fatou ba tey. yow xaaral yow xaaral bu suba. déedéet non non nga ne. yow du ma wax ñaar wax ñaar xaaral bu suba ñaar rek la la ci wax. ah du ma wax xaaral bu suba. kon lii avant bu kese la. non non suba la ñuy yëngu dañuy yëngu dañuy nuyoo. suba. waaw. eh déglu leen yéen. damaa bëgg suba. waaw sama yaay tëdd nii mu tëdd. waaw ma jàkkaarloog moom fee suba la ñu naan. waaw ngañ tàng nga de ngañ. ma suba lay génn. mais mbég mbég nañ mbég gi. ma ne ko suba. waaw mais tey jii ci guddi. waaw seen Mamour Mbaye yoonu tey jii dafay waxtaan si. waaw waaw ci kaw lañ koy defee xaw ma ci kaw lañ koy defee wala déedéet. waaw su ko defee ñu participer. mais daal yëf. waaw yëf mayem xaalis mais. sëñ Ngaye dégg nga kii ne da ngay ñibbi ci kanam. ah sëñ Ngaye sëñ Ngaye kii ne da ngay ñibbi ci kanam. waaw dañ mi du ma tontu yéen sëñ Ngaye da ngay ñibbi wala ñibbi woo. bu ay bu wéy nii lan nga ko wax. waaw te loolu tax. ak fii lu ma naan ko sama baat baa ngi kenn du ko ji moom sëñ bee ko tànnal bopp diggante na sëñ bi yàlla la sëñ fa yow la mais sëñ bee ko tànnal bopp teg ko foo xam ni tegu ko kenn melal ko noo xamante ni kenn melul damaa wax sànq buumi ko boo génnee kër Serigne Abdou Karim doo ci teg beneen kër kër Fatou Kiné nga ci def loolu la doom bi waaye nag doom bu ko ndeyam gërëmee am na lépp ñàkkul dara te Fatou Kiné suñu yaay bu baax ji tëdd daa kontaan moom da koo gën ay séeréer yi nii bu ndee doo baax dañ naan naat ngeen bokk boo fi ñëwoon fekk àdduna bépp nekk fekk ko fi mbokk faat kinni sa xel bi ne am na leen lu mu xalaat da nga naan kii li ñor dëgg la mais ay mbokkam ak yaayam a nekk nii gën koo jege keneen ku ñëw soogu ñëw kon mbaax gi ñuy wax ci moom ak taalibe gi ak li mu am ci suñu Abdou Karim suñu borom séddu ko loolu mbiru suñu borom la ak liggéey te ci kattanu yàlla mbaaxam faatu day yéeg di dem waaye du wàcc mukk mukk ndax loolu ñaan bi suñu borom nangu la liñ koy ñaan mooy ah doomi ñay kenn ko ñaanal la ngand de ñaanu ko rek mu gudd fan ci kàttun yàlla ak baaxam macha allah yàlla yàlla laf cat moom ne moom day waaye du waaj waaye nag li ma bëgg a xamal li ma bëgg a xamal réew hmm. bu waa Sénégal dafa mel ni dañu suba la final coupe du monde. waaw eh, waaw préparation waaye bu suba. bu suba. Hmm. bu suba. jamono bu suba. jamono kenn ku ne di nga xam kenn moo doon mën. Hmm. bu suba. jamono ni Touba. fii ci Ndindi. kii hmm. def ci Ndindi. ki nga xamante ni moom la ah, ñu ah ma nga nee jëm jàpp. ma nga nee ah. moo jàkkaarloo sëñ bi wàññi ay bi ñor. ak ay millions yi dul jeex yoo xamante ni kenn mënu ko wàññi jox ko sëñ bi àddee mais maa yëg ne leen la muy wan la muy jox sëñ bi nit ñi di ko gis bokkul ak la muy jox ci suuf te kenn ko gis kon nag. jëm ji ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan ànd ak wér li mu man ren bu déwénee mu mën lu ko ëpp ñun day sëñ sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim démb ba mu génnee nuyu ñu daa atal ko ci buntu daa freiné ne ana Boucounta ah. ana sëñ Gaye ñëw leen ñu ñëw mu woo fàcc ne mais ne ko ñooñ say gan lañ dalal ñu ñëw faat ki ne dugal ñu ci néeg ñu ñëw faat ki ne dugal ci néeg boo xam ne clim bi dañ ko def seet dama leen wut ne leen defal ko 24. waaw ñu ngi mel ñu ngi bëri. ñu ngi bëri mois de décembre. il fait chaud. dama dama ju. Ah, il fait chaud kon nag suba la suba li ma bëgg a wax daal mooy suba. waaw ñun suba ku ñu fekk ci nit ñi nga xam ne dëgg la. ñu bëgg ñu fekk. loolu dama ci waxoon après la. loolu beneen émission. ni nga bàyyi soxla bàyyi